ci Tivaouane euh, jël li ñuy woowee train de service gannaaw bu équipe chemin de fer du Sénégal accompagné ak équipe maintenance yu GCO si semaines yi ñu mujj yëpp yëpp yëpp ñu nekkoon si raay bi di réparer réhabiliter xool lépp li nga xamante ni da si xaw a dëng ñu jubal ko loolu moo ñu permettre tey jii nii ñu mën a envisager euh, def des circulations voyageurs donc tey jii nii résultat bi moom lañu gis nii moo ñu permettre d'ailleurs ñu jël benn train de service mak matuwaay yu ñu war a jël yëpp jël nañ ko non seulement matu matuwaay sécuritaire pour que train yi mën a circuler mais matuwaay aussi pour li ñuy wax gardiennage passage à niveau parce que euh, booy xool diggante Thiès ak Tivaouane dafa bëri ay passage à niveau am na yi nga xam ne c'est officiel mais am na yi nga xamante ni aussi c'est clandestin tey train bu ñu service bu ñu indi bi euh, tout du long fépp fu ñu romb passage à niveau taxaw nañ wàccee fa ay nit jox leen drapeau jox leen sifflet jox leen gilet pour que ñu mën a gardienner surveiller ñu ñaan population yi aussi ñu attentif xam ne lii nii euh, sécurité bu ñu siy bi pour ñun.